asalaamaaleykum maa leen di fay di leen nuyu di nuyu si waa Sénégal yëpp di nuyu képp koo xam ne yaa ngi may seetaan. Euh, la bi waroon bi lan la. reetaan bi mbégte la ree bu bi lan parce que tey bi si mbégte la nit ku nekk li ngay ñaan. Mm-hmm. parce que àdduna lii moo fi am. Mm-hmm. ah juddu raam dox ah, yàlla may la soxna. Mm-hmm. nga nekk fi ba mënutoo fi nekk. nga jógee fi loolu moo fi am. donc sant yàlla rek ah sant yàlla tey bisu mbégte la donc mënuñu def lu dul kontaan di reetaan xam nga di saafonteeg suñuy su suñuy am di jàmm suñuy xarit yu ñu gëj a gis xam nga suñuy fans ak ñëpp ñi nga xam ne tey déplacé wu nañ ñëw ci événement bi mu doon contentement bu mag quoi doon mbégte bu mag si man mais avant avant Biril avant kii bi euh, mariage bi dañu ñëw sànq nga génne benn son validé euh, mun nga ñëwaatal si son bi mu am ay paroles yu doy waar yoo xam nga ni maanaam wax nga ko ci quoi. Ah, sa àdduna yaa ngi dund am koo nekkal ah mais tey boo nekkee ak benn nit boo xamante ne yàlla boole na leen ay at ngeen nekkoo am fu ngeen jaar am fu mu metti ngeen dégg lu nekk mais ngeen muñ tey ba si fii donc tey morceau bi tamit loolu moo ko waral rek c'est c'est fait bien avant tey laa choisir pour génne ko parce que tey moom pour li ma wax léegi rek bisu la donc ñu génne si way bi euh, def ko mu nekk way boo xam ne dañ ko dédié à madame fal voilà mu nekk validé mu ngi YouTube bi. donc gaa yi dem déglu ji te ñoo ngi waajal yeneen affaire tam yoo xam ne incha allah gaa yi nañ si seen bët ah bien sûr dëgg la waaw ah, waaw bien sûr loolu moo am <laughs> loolu moo am affaire yi noonu la. waaw. trois ans dafa yàgg. dëgg la amee mais lu yàlla dogal rek xam nga tey lu jot rek yomb xam naa yàlla moo ko bëggee woon nii xam nga tey man su ma sañoon tam defoon naar sax bu yàgg parce que sama yaay bi mu fi jógee léegi yàggul voilà mu doon loo xam tamit tey moo gën a fees sama xol parce que ma sañoon bis bi da ko fiy fekk voilà mais xam naa yàlla ni la ko bëggee woon yàlla ni la ko tuddee woon yàlla moom moo yor programme di programme te lu mu programme rek loolu lay am voilà donc yàlla nag heure bi la ko bëggoon te bi la mat waaw dëgg la moment yii nii. nga war a mm. mm. ah, na trop ma métti la tey bis bi mu naa ne bis bu mbégte la bisu naqar la parce que tey soo xalaatee ne waroon na nekk sa wet rek xam nga te mu doon koo xam ne chaque instant loolu lu ma doon wax taxal jabar taxal jabar toog tout le ma doon wax di ma tooñ di ma tooñ tout le temps comprendre nga tey rek bon bëggoon naa vraiment affaire yi fekk ko fi mais yàlla ni la ko dogalee yàlla ni la ko bëggee di sant yàlla te di ko ñaanal. fi mu nekk gënal ko fii fii mu jóge du ko ñaanal yàlla teere ko àjjana yi gën a kawe voilà ñun moom ñoo ngi fii chaque jour di sax si julli di ko ñaanal di wéy ci ay ndigalam di def lépp loo xamante ne tey tamit fi mu nekk du am dara lu ko met si ñun waaw. Hmm. waaw message bi madame laa bëgg nga lancer du ma wax dara lu dul <laughs> parce que xamante nañ quoi sama sama sama sama kii la du sa wax. waa sama waaw euh, ah, sama non sa kooku non bo bokkul bokkul. bokkul quoi parce que sama sama sama xarit la sama sama sama raq la xam nga dañuy séddoo dañuy partage affaire yu bëri quoi comprendre nga donc moom xam na man xam naa quoi donc moom du ma wax dara quoi même su ma waree wax sax avant may wax dina xam la laa war a wax mm-hmm. comprendre nga donc loolu dama ci sant yàlla bu baax a baax. waaw jàmm ak salaam rek am nga jàmm ak salaam parce que. anecdote non anecdote moom bëri nekk quoi ah. bu neex. waaw bon anecdote bu may raconté benn bu neex mooy dañu amoon benn concert bu ñu waroon def Europe. mais xam nga jigéen ñi moom dañoo bëri ay affaire quoi donc bu muy dem ma ne ko na ku nekk te saak saak bi nga attan doo ñaari saak moom mu ne day yóbbu trois saak ma ne ko xam naa Europe day compliqué de mu ne trois saak lay yóbbu. ñu dem ba foofu yóbbu suñuy euh, moom mu yóbbu trois sacs xam nga plus man sac yi ma yore ñu jël métro bi rek benn maire bu màgget ñëw ba si moom ne ko mais madame tu déménages <laughs> ndax bagage yu bëri <laughs> mu ne ko waxoon naa la. <laughs> waaw xam naa sénégalais yi waaw sénégalais yi ñoo baax rek. sénégalais ñoo baax rek xam nga tamit nekk nit yu baax nekk nit yu rafet xol nekk nit ñu am positif positif euh, open mind nekk nit ay positif di sant ñëpp ñi nga xam ne kontaan nañ si di leen gërëm vraiment amuñ seen fay que tamit ñun ñëpp benn lañ ko ay doomi Sénégal lañ yaakaar naa tey benn doomu Sénégal bu am mbégte ñëpp ci war a kontaan te tey loolu laa gis dama gis ne deret bi benn la ñun ñëpp benn lañ quoi donc di sant yàlla ci loolu di sant yàlla ñëpp ñi nga xam ne kontaan nañ ñoo leen ci sant bu baax a baax vraiment. ñaanal yàlla suñu borom jubale la ak sa soxna mu nekk sa yi ñuy takkee ca aras loo wax sànni en plus mu doon nit koo xam ne nii nit ko yaru la nit ku baax la doo ko dégg si affaire yu ñàkk fayda su ñëwee day wone professionnalisme liggéey après dem yoonam te loolu la ñuy xaar si jeune bi nga xam ne nii euh, macha allah te nag mu accomplir fi yenn affaire yu bëri donc dañ lay ñaanal yàlla gudd fan. Euh, gën la jubóoleeg sa soxna. ba projet yi nga xam ne nii maanaam teg nga ko rek incha allah rabbi yàlla mottali lan nga koy tàggatoo. waaw di sant di gërëm ñëpp ñi nga xam tey déplacé wu nañ ñëw fii te déplacement yombul temps amul te nit ñi bàyyi nañ seen lépp ñëw fii teewee si affaire bi am na ñoo xam ne sax amaan nañ ñëw ba fii duñ gisante ak man wala duñu toog ak man ndax xew yi nu mu bëri nit ak nu affaire yi xam nga xam nga xew noonu chaque jour day ëpp loxo surtout xew nit yoo xam ne dañoo siiw maa ñoo ngi sant ñëpp ñi nga xam déplacé wu nañ di tamit remercier ñëpp ñi nga xam tey dañoo yónnee ay message am na ñoo xam ne mënuñ ñëw partout dans le monde en France Amérique Canada États-Unis partout gars yi ñu ngi yónnee ay message di ñu béggee di ñu ñaanal ñooñu ñëpp ñu ngi leen sant leen gërëm leen wax ne gis nañ seen i messages et puis kontaan nañ nañ ci vraiment on vraiment trop fier xam nga xamuñ sax xam man mënu ma sax wax instant bi nii xam nga ndax vrai ndax message yi may jot vraiment kontaan nañ trop daal laal leen mën a wax et puis merci beaucoup waaw lu mu wax rek loolu la <laughs> moo ko fa am. moo ko fa am lu mu wax rek noonu la waaw waaw lu mu moo ko fa am nanguwul ah. waaw waaw mais justement di remercier presse bi très sincèrement gis nañ ne toujours vous êtes proche de Bril franchement parler euh, mu nekk xale bu baax di suñu jarbaat ñu yar ko mu am diine yërëm waajuram yërëm famem ak ay sëram vraiment Bril baax na rek lañu mën a wax ci moom dañuy ñaan yàlla ko yàlla lafal cat yàlla na àggaleeg jàmm li mu séentu ci Dieyna yàlla ko yàlla defal ci barke yaayam ju baax ji tëdd fële ndax dañuy wax dëgg-dëgg mais affaire bi ndey ci la mais yaayam ku xam yaayam dëgg dëgg dëgg dëgg bi ne ci moom yaayam nga xam ne daan bàyyi bu guddi muy fëgg góor ñi di yëkkati dépasse di leen di jox loolu la wax naan lu lu lu nekk ci butéel saañ ba moom lay xeeñ looloo am ci moom mi tey rawatina magam bi toog Ablaye Ndiaye di ma yërëm ay rakkam tey fi yaayam taxoon tey fa la taxaw dëgg fa tànkam tey ñoom ñëpp maa leen yar xale yu tuuti boobu ñu ngi jàng xamuñu dara mais ñu yërëm seen yaay bëgg ko jàppale seen yaay ba tey sax boo fa demee naam sax seen yaay manqué nañu waaye tey boo demee tey day mel ni seen yaay nga fa tey ndax lam leen jàngaloon ñoom ñëpp ñu ngi ci Bril ku am yërmande la Bril a def lu baax la vrai la moom Bril dañ ko ñaanal maa ngi koy wax sama benn copain ma ne ko booy ñëw ngeen mun a ah, ma ne ko tey dama gis ba ñu déclaré mariage ba léegi dama gis ñi ma xam ci presse bi yëpp lu baax rek la wax mais man ay nit dañ ma woo wallahi lazim dañ may woo ne ma dañoo yéene jibi ba euh, Dieyna ku wax mu ne ma dama kontaan ci mariage bi kon donc loolu sant yàlla la mës naa toog ak yaayam benn jour yaayam yàlla ko suñu borom jéggal yeesal yéen ma ci moom mu ne ma prince mu ne ma dama dama bëgg Dieyna yaayam mu ne te yaayam tey la mu bëggoon tey tey doomam tey remplir na mission boobu dañ leen ñaanal jibi rek dañ ko ñaanal mu gudd fan yàlla may ko wér ba yoon bii mu jël mission bi mu ñëw mu àggale kooku jàmm am na ngërëmu yaayama ah, foo ngeen xam ko yaayam gërëm na ko jaruwut sëriñ jaruwut gala jaruwut dara da am ñaari waajur rek di gërëm frère am bi Ablaye Ndiaye kii taaw waaw bon xanaa di sant yàlla rek di sant yàlla baa di julli ci yonent bi sallallahu di ñaanal suñu waajur fi mu tëdd yàlla yërëm ko te xare ko àjjana yàlla yóbbu ko ci àjjana yi gën a kawe euh, wax ji nag du du mën a bari ndax euh, ci ci ci Biril rek la ñuy wax Biril sama rakk la euh, man maay seen taaw mais man papaam la waaw Biril dafa baax ba ma jël sama doom tuddee ko ko waaye dafa baax trop waaw nit nite la dafa nite nite na te xam na àddina aussi mën a def lu baax fonk na aussi tamit ay mbokkam taxaw na yaayam ba yaayam génn àdduna Dieyna Dieyna xale bu yaru la te bokk na ci famille bu baax dama dem ba Kolda waxtaani ji ak papam ak yaayam ma fekk na ñu doon ay nit nitu diine ñoom seen lépp ci charia lañ ko teg dama sant yàlla bu baax a baax ba ma ñëwee gis papa Dieyna toog gis yaayam toog fajar ga may génn di dem ji ñibbi papa mi ngi yor kurus ubbiwul gémmiñam day werd rek di werd di werd ba yegg ak man ba ca ba ca garage bi ma jël oto ba dem kon donc ñooñu ay nit ñu baax lañ jey naa nañ ko ñaanal dama bëgg sénégalais yi euh, ay xale buñ amee fu ñu toll nan leen ñaanal ndax yàlla loolu la bëgg yàlla loolu la bëgg yàlla dafa bëgg doomu aadama boo xool ci moom xoolal ci moom lu positif waaw mais bul xool ci moom lu négatif kon donc nan leen ñaanal yàlla def leen jàmm ndax biril biril am na ay waajur yu baax jey naa am na ay waajur yu baax kon donc nañ leen ñaanal yàlla defal leen jàmm yàlla defal leen cat man vraiment dama dama ci kontaan te pratiquement li may gis ci internet bi yëpp vraiment wax dëgg yàlla tamit dama ci kontaan dafa mel ne nit ñi dañ leen ko yéenee kon donc dañ leen ñaanal yàlla na leen yàlla defal jàmm bu baax a baax a baax vraiment yéen aussi vous la presse kontaan nañ ci yéen bu baax a baax a baax seen taxawaay rafet na li ngeen def aussi rafet na kontaan nañ jërë ngeen